merci beaucoup chers amis internautes de Ose Media euh, au mois de décembre Inshallah, vous di live direct euh, Nous allons dem en live en direct concert Wally Balago Seki qui est def Gambie dinañ leen indil concert yu Bari Bari, les nouveautés les artistes déplacement yëpp di ngeen ko am mois de décembre bi gën abonner, abonné ngeen di Ose Media, liké Oser Média équipe bi fi mu nekk émission yu bientôt ñu indil leen lu bees ci Média en tout cas gën leen abonné bés notification yi di gën a bàyyi xel programme yi xam ni chaîne la boo xamante ni 100 pour cent culture la culture rek lañ leen di indil kon nag gaaw leen gaaw ngeen gën a abonné ci seen chaîne OG Média mois bi dara du leen dem foire ba indil leen la am ca foire ba dinañ dem ci concert yi dinañ dem ci sortie yi nga xamante ni artistes yi ñu ngi koy def seen déplacement ak journal de la culture yu bëri bëri bëri kon nag yéen ñi bëgg OG Média seen chaîne yi noonu te dina leen lu bees tàq incha allah kon nag gars yi kii fa leen bu baax te di ñu xaar ñu ngi ñëw dal seen kaw.